Jamra jógul rek si coobare boppam dugg ci dossier bi jàmbaar yi ñoo jóg ñoom ab Ablaye Diouf mi ak euh, en tant que secrétaire général adjoint ak seen secrétaire général bi fallu Nia ak seen président bi El Hadj Maguette Sall sol seen dàll fekk Jamra ba ci suñu bureau sàkku ci ñun ñu gunge leen ci ñun nag balaa ñoo dugg ci dara dañ koy gëstu mais ba ñu ko gëstoo gis nañu ne dañu leen tooñ mu di lan ñoom yóbbu ñu seen bopp Arabie Saoudite Arabie Saoudite moo jóg ne Irak bu Saddam Hussein song na kowet dal na ci seen kaw ndax dafa jàpp ni historiquement Koweït ci Irak la bokk kon dafa amoon des prétentions territoriale sur le Koweït yemul ci nangu seen i suuf dafa nangu ay teenu pétrole ànd ak doole parce que ñëpp xam nañ ne au Moyen-Orient armée irakienne c'est l'armée la plus puissante de cette zone loolu tax nag Arabie Saoudite tiit daa di jëfee loolu Kocc Barma di wax naan ay du yem ci boppu borom. ci la woote au secours nag à la communauté internationale mais surtout à la oumma islamique waaye yàlla def Sénégal ndam lu rëy parce que Sénégal moo nekk le premier pays de la oumma islamique noire à avoir présent en mobilisant euh, daal di mobiliser ñeenti téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom ci ay militaires mooy seen bat bi ngeen di dégg ñii ma taxawoon yëpp ñii ma taxawal nii ak ces blessés de guerre la ñoom ñëpp demoon ni dëgg la defal nañ leen dëj bu rafet. ndax euh, Medoune Fall dem na fa le ministre des forces armées ànd ak euh, le général Mansour Seck euh, fekkente avec le le chef d'état-major de forces musulmanes alliées le prince Walid Ben Sultan di jarbaatu buuru Makka ñu defal leen dëj bu rafet ba defal leen fa sax mausolée alors ba ñu ñibbisee jarbaatu buur bi le prince Walid Ben Sultan chef d'état-major de forces musulmanes alliées buur bi yónnee ko pour mu ñëw jaale si Sénégal ñëw na te ba muy ñëw il n'est pas venu les mains vides nous avons la preuve te la mu indi ñi gisuñu ko alors bu ko defee ñoom nag fëgg nañ bunt bu ne régime bu ne joytu nañ fa affaire bi avancé wul si la ñu def loolu ma leen wax léegi ñëw sàkku si ñun ñu gunge leen alors ñun bañ leen gunge nag ba am li ñuy téye muy lu dëgër lañu ñu jëkk def dañuy bind lettre président Macky sal ñu ngi koy gërëm nag ndax suñu lettre boobu jox na ko gëdd ndax jox na ndigal mboolem jawriñam ñi nga xam ne dañu impliqué ci dossier bi pour ñu ubbil ma seen i bunt te loolu am na. ci gàttal daal dossier bi mat na ndar kepp nañ ko tënk nañu ko jox nañ ko premier ministre premier ministre ndar kepp na ko tënk na ko jox na ko ci jox na ko président Macky Sall de sorte que nag fii ñuy wax ak yéen le président de la république ndax bu ñu fàtte ginnaaw ndombal tànku chef d'état bi mu yor. moom mooy la chef suprême des armées voilà kon moom la ñuy déglu ma di ko gërëm nag ndax woo na ma jokkoo nañu ak moom téléphone kon nag bu fekkoon itteelul dossier bi yooyu yëpp du ko ci fekk ma di gërëm premier ndax moom itam wax na ma ci làmmiñu boppam ne ma président mu ngi ci disposition yu baax a baax pour saafaral ko seen yaakaar yëpp ci moom lañ ko wéer ndax mu mën leen suturaal ndax seen yaakaar bañ a tas ndax ñu war a jot li ñuy jot ñu war a delloowaat seen doom école mën leen a delloo ndax xale yu bari dàq nañ leen école ñii agence immobilière yi dàq nañu leen fa ñu loué ñu ngay dëkk seen i kër mbokk ak yu demee noonu mu mën leen a suturaal su boobaa yàlla defal ko ci tiyaaba ndax suñu borom moo wax ci alxuraan wax ko tam ci bible bi bu yont yàlla instant nee na veuve ak orphelin sama njabootu bopp kon nag ku jóg yëkkati sa dërëm na yaa ngi may yaa ngi leen di dimbali mën nga ko defal waaye ku leen dimbaliwul ku leen dimbaliwul nanga leen bàyyi ak weccit bi ñu am parce que mooy li am. dañu jël euh, seen weccit sàkkal ko pexe ndax organisation des nations unies moo fi yónnee xaalis euh, bo boo xam ne egsi na waaye joxuñu ko ña ko moom voilà loolu nag jox naa samay euh, interlocuteur la résolution 1483 embargo pétrole contre nourriture bi wane ni ba ñu jaayee pétrole Saddam Hussein am nañ ci 500 milliards séddale ko 34 contingents yi France am na ci mille sept cent cinquante milliards ñu leen fay waaye c'est normal parce que ñoom dañu bari vingt mille soldats la woon ñii tamit commission boobu am na lu mu leen jox ana xaalis ba kenn gisu ko bu dul loolu itam euh, nu mu tuddati général Louis Tavares de Souza moo dëggal Jamra parce que bu fekkoon yéen yéen ko wax ñu ne ay journaliste lay waxati nañu mais de Souza du journaliste moom c'était le chef d'état-major des forces armées le plus haut patron de l'armée de terre de mer du ciel de, de, et de l'air tout le monde moo leen chefoon moo wax ci làmmiñu boppam ci micro Baye Oumar Gueye seen naataango bu Sud FM nee na l'argent est bienvenu egsi na mais c'est l'État qui ne l'a pas remis au sol, euh, euh, aux